la boo xam nii sëñ bi nekk ci diir juróom-ñaari at mu jóg Daaru Salaam ci dëkk bii bëgg foo xam ne fu mën a jàmm suñu borom tax mu sañ ci dëkk bii di Touba daal di ko tudde kër gi mu tudde ko Daaru Xuddoos kër yàlla nekk na fi juróom-ñaari at jàkk ji nga gis ni foofu la daan jullee def ko muy jàkkam moo ko rëddoon daan fi jullee di fi jullee di fi jullee di fi jullee ba weer koor mu fi mujj woor muy juróom-ñaareelu atam booba la la ko lafi fi la fi doon def lixtikaaf weeru koor wa ci doon lixtikaaf yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi la ko mujj feeñoo bi sëñ Mourou saa def fi nag muy barab boo xëy nii nag euh, wax sëñ saa di dégg naa daana wax ne képp ko wax ne yaa nga jóg ne maa ngi dem ci barab maa ngi dem bayti nee na nga na nga rafet njort ne jéggal nañ say bakkaar waaw ah, mooy mooy daraje barab bii barab la boo xëy nii yonent bi am na fi ñaar fan wala ñett gana fi euh, Seydina sëñ sëñ Touba moom yonent bi salaam muy muy muy muy bayti ñu tudd ko Daaru Xuddoos quartier bi muy Daaru Xuddoos waaye nii bi muy bayti boo dee ci biir gaal yi nekk ci biir ay gaal a ngi fi yoo yu bari yoo xam ne war na mat fanweeri gaal ak yaar gaal ga nga nii ci la mbaaxan xeej ba mi ngi ci biir fi la fi la yenoo woon fi la yenni ko moom waaw barab la boo xam ne daal képp ko wax ne dikk nga Touba te agsi woo fi day mel ne ku ñu wëruloo tool nga yem ci buntu tool ba noonu loolu mooy dara jàmm waaw ta ku fi dikk ku ne it loolee waxi sëñ Touba waxoon ne wax li awaa jële si moo bi xidmatin wa ablu maraamoo sëñ Touba moo wax suñu borom ne ko yow suñu borom képp ku ñu siyaare na nga ko jéggale bàkkaaram te faj aajoom loolu mooy sëñ Moussa mu Mourou Moustapha moom it loolu mu sukkandiku ca loola ak leneen ba ne rek ku fi teg sa tànk rek jéggal nañ sëñ bakkaar kon nag ñoo ngi siyaare ñëpp te ñaan suñu borom defal ñu tawféex